opposition bi mel ni ku néew doole lool tey ci kanamu président Macky Sall ba mu faloo ci boppu réew mi ba tey ni ma koy faral di waxee lépp lu mu waxoon ne da koy def def na ko est-ce que opposition bee néew doole wala moom moo bëri pexe ndax saa suñu dajaloowee ba ñu ne am nañu doole it dana def ay mbir ba ñu tasaaroowaat loola lañ war a waxtaanee tey ak sunu doyen Mamadou Sy Albert taskatu xibaar nekk itam analyste politique di chroniqueur ci kër gi kenn dootu la fi présenté doyen ñu ngi lay nuyu ma am mbégte man particulièrement dalalaat la ci Demb ak Tay bismillah maa ngi lay fay Fatou émission di la jaajëfal mhm. jërëjëf doyen ci disponibilité bi yow itam euh, heure bu ñu la sollicité rek wax dëgg yàlla da ngay euh, nekk à disposition loolu ñu ngi la ciy gërëm euh, ñu tàmbalee ak xëy na njàngat looy def ci situation opposition bu Sénégal ak évolution wam mun nañu sax jéggi président Macky Sall est-ce que Sénégal mës na am toujours une opposition forte boo xam ne xëy na ci yenn jamono wañ na loxo nguur gi nekkoon au pouvoir ba ñu deltu ginnaaw ci ci ci yenn mbir yi waaw bu ñu xoolee euh, ci suñu taarix euh, pouvoir ak opposition moom euh, opposition bi bëri na ay bëri na ay façon ndaxte boo xoolee opposition bu sengor amoon opposition de gauche la woon mooy waa PAI LD AJ ñooñu seen doole mu ngi nekkoon ci syndicat Hmm. ces syndicats wala mouvement social foofu la parti le gauche yi doon jaar ba am ay liberté syndicale euh, liberté politique euh, ay manifestation grève euh, foofu lañ doon jaar ba ba ñu am doole secteur yu bëri foofu lañ doon xeex ñu ñu nekkoon ci parti politique yi dañu amoon taxawaay ci biir muy entreprise bi muy école bi muy université bi donc opposition boobu noonu la tëddoon ci euh, jamono Senghor boo ñëwee nag ci Abdou Diouf foofu la opposition bi euh, lu ñu ràññee mooy PDS foofu la fële. Hmm. PDS nekk parti de contribution après nekk parti d'opposition euh, PDS nag moo indi marche marche pour euh, élection euh, euh, élection jaar yoon wala nit ki am liberté politique def marche bon ci jamono Abdou Diouf daal parti politique yi lañu gën a am doole mhm. boy comparer jamono Senghor ak jamono Abdou Diouf Senghor ay parti de gauche lañu ak syndicat mais Abdou Diouf parti politique la commencé am doole foofu la ñu commencé da gis sax ay coalition première coalition de l'opposition muy COSU ci fin Abdou fin Senghor début Abdou Diouf la am donc foofu la organisation politique yi commencé am expérience euh, ñu booloo am benn coalition. ndax ci Abdou Diouf la multipartisme amee. moo voilà waaw multipartisme boobu moo ubbi moo xàll yoon parti politique yi hmm. ndax jamono Senghor amul woon multipartisme kat courant moo amoon te courant yooyu amuñu woon doole hmm. mais bu ñu ubbee multipartisme bi le parti yi commencé nag euh, dugg ci géew gi hmm. euh, bu ñuy am doole syndicat yi amuñu woon doole comme ni ñu amoon doole ci jamono Senghor bon boo gisee aussi euh, ci Abdou Diouf foofu la coalition yi gën a dëgër hmm. euh, euh, loolu moo jur sax coalition soppi hmm. bon boo xoolee nag jamono Abdoulaye Wade dafa mel ni syndicat yi ak parti yi seen dool dafa wàññeeku lool lool lool hmm. ci ci ci période Abdou Abdoulaye Wade boobu moo continuer ci jamono Macky Sall. d'accord yi amatuñu doole parti yi amatuñu doole euh, lu gën a sës nag ci opposition euh, temps euh, Macky mooy que dafa mel ni opposition amatul leader alors que boo xoolee jamono Abdou Diouf opposition bi dañu boole woon am leader am aussi parti bi nga xam ne taxaw na muy PDS. Hmm. ak les partis de gauche. Mm-hmm. mais jamono makisal depuis deux mille douze amul syndicat rek bu taxaw pour xeex nguur euh, Macky mm-hmm. amuñu aussi leader bi nga xam ne ràññee nañ ko kii mooy leader opposition euh, amul aussi euh, parti ci opposition bi nga xam ne ràññee nañu parti bi am na doole donc loolu bo opposition daal ci sooy sooy def taarix opposition noonu la noonu la tëddee jamono Senghor jamono Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba tey jii euh, Macky Sall. d'accord euh, Abdou Diouf euh, comprendre nañu li tax foofu la parti politique yi gën a am doole ni ma ko waxee sànq ndax ci la multipartisme commencé sous Senghor loolu amul woon donc syndicat yi xëy na ñoo fi nekkoon te ñu bëri dans la clandestinité lañ doon yëngatu dañ doon làqatu di di def yi ñuy def léegi ci jamonoy Abdoulaye Wade nga ne foofu itam la politique yi ak syndicat yi tàmbalee néew doole ci opposition bi lan moo ko waral lan moo indi boobu coppite diggante Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade ci opposition beeg uh, syndicat yi. waaw euh, boo gisee euh, Abdou presque euh, PS dafa amoon dafa amoon doole. Mm -hmm. euh, ku jàkkaarloo woon ak PS ak Abdou Diouf mooy PDS ak Abdoulaye Wade. donc foofu dafa am bi bipolarisation dëggantaan diggante pouvoir PS moo yore nguur opposition bi PDS moo yore opposition bi euh, na booy comparer situation boobu euh, lu tax syndicat yi amatuñu woon doole ak euh, parti yi amatuñu woon doole ci jamono Abdoulaye Wade mooy que opposition dafa dem ci nguur Abdoulaye Wade dafa ñu toog àndaale ak opposition bi yëpp. muy gauche bi muy démocrate yi def coalition soppi euh, yaatal euh, ci loolu d'ailleurs ci jamono Abdoulaye Wade la euh, par exemple parti de gauche yi c'est la première fois muy dem ci nguur. Mhm. ñi nekk ministre ñi nekk député ñi nekk DG en tout cas duggal nañu seen loxo ci ci nguuru Abdoulaye loolu bokk na ci li nga xam ne dafa wàññi doole parti politique yi. Hmm. parce que ñooñ naturellement ci opposition lañ doon nekk. boola ñoom ci opposition la ñu juddoo ci loolu la ñu màggee. Hmm. Euh, ci la yàgg xeex ràññee leen ci opposition mais bu ñu demee ci nguur euh, soo xoolee euh, Abdoulaye Wade deux mille ba deux mille douze dafa mel ni xamituñu woon. parti d'opposition yu ñu xamoon ci jamono sengoor wala ci jamono Abdou Abdou Diouf donc loolu defe naa wàññi na doole bu baax a baax euh, opposition bi mm-hmm. boo gisee aussi Abdoulaye Wade bi mu ñëwee syndicat yi amatuñu woon doole dëgg-dëgg mm-hmm. ndaxte leader yu bari yu nekkoon ci syndicat opposition dañ leen dugal ci ay société national ñi nekk euh, PDG ñi nekk euh, Euh, président conseil d' administration syndicat yi aussi dañ leen dugal ci nguur. Mhm. donc loolu def naa bokk na ci li nga xam ne daal euh, wàññi na doole opposition bi ndaxte boo xoolee Ablaye Wade deux mille ba deux mille douze amatuñu woon à part parti socialiste. Mhm. amul woon benn parti bu nekk ci opposition bu dëgër. et même PS dafa mujj xar euh, am division seen biir euh, loolu yëpp def naa bokk na li li nga xam ne daal dafa wàññi doole opposition bu baax a baax buñ ci boole aussi euh, opposition bu mu demee ci nguur ñu bokk ci gouvernement opposition PS amul woon leader. Hmm. loolu aussi def naa lu lu wàññi doole PS mooy que amuñu woon leader charismatique comme Ablaye lay hmm. dañu dañu mujj sax am ay problème seen biir Tanor jël PS mais ñu bëri ànduñu woon ak tànneefu. Tanor euh, Tanor. bon boo gisee aussi def naa ci li nga xam ne bokk na ci lu wàññi doole opposition bi mooy que PS. amul expérience xeex opposition comme PDS nu mu ko amoon. Ah, parce que nguur rek la xam. voilà nguur rek la xam. bëgguñu euh, ñemewuñu manifester. Hmm. ñemewuñu grenade ñemewuñu dem prison. bon dañuy dañu négocier. Hmm. loolu aussi bokk na ci li nga xam ne daal. Euh, wàññi na doole opposition ci jamono Abdoulaye Wade. Hmm. est-ce que tam opposition bu yàgg bi Abdoulaye Wade def vingt six ans euh, nekkul moom loolu moo ko may mu mun a dajale ñooñu ñëpp ndax dafa yàgg ci opposition bi yaa ngi wax sànq soppi gum taxawal euh, mu nekkoon benn xëy na mouvement bu mag a mag bu dajale woon ñu bëri aussi bien ay euh, peut-être libéraux ak ñoo xam ne sax waa gauche bi la fooguñu woon ne bés dinañu dinañu dem fekki nguur walla ay ay libéraux en tout cas di gouverner ak ñoom waaw foofu moom euh, defe naa ci dëgg-dëgg euh, ab PDS ak euh, ak Abdoulaye dañu exploiter doole gauche bi hmm. gauche bi dafa mës a xeex dafa mës am doole ci syndicat surtout ci liggéeykat yi bon ñooñu soo leen boole ci gouvernement de de de dafa mel ni daal da nga leen di séparer ci population bi. loolu loolu moo tax euh, euh, parti de gauche yi bu ñu demee ci gouvernement yi pratiquement amuñu woon influence ci syndicat yi. bon amuñu woon influence aussi ci askan bi. Euh, dafa mel ni daal dañu réeroo gauche bi dafa réeroo ak askanam. bi ñu demee ci gouvernement bi et loolu nag wàññi na doole parti politique yi euh, parti en tout cas parti de gauche yi soo xoolee rek ci euh, wàllum influence mhm. euh, diggante deux mille ba ba ba deux mille douze Ablaye li Cot moom mos am trois pour cent bu motul sax moins de trois pour cent ci élection présidentielle hmm. pour pour wane ne rek euh, doole gauche bi dafa wàññi bu baax a baax. Mhm. bi ñu demee ci demee ci nguur. fekki nguur. Mhm. Mhm. alors euh, bu ñu jógee ci président waat peut-être dinañ ñëwaat après euh, président Macky Sall ñëw. Euh, moom euh, particularité mooy opposition bi d'ailleurs lool la loolu la waxoon aussi bi muy ñëw nous allons réduire wala je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression euh, loola doyen noo ko noo ko jàngatee tëkku la boo xam ne tey président Macky Sall mën nañoo ne réussir na ko bu ñu gisee ni opposition bi demee. waaw man la ñu wax ni que réussir na ndaxte euh, Macky Sall bi mu ñëwee ci tànk Ablaye Wade la la la taxaw dafa dafa ñëw parti de gauche yëpp mu euh, yóbbu leen ci gouvernement bi hmm. bon ñu fa desoon ci opposition bi mooy PDS PDS euh, soo xoolee deux ba tey ji Macky Sall nguur Macky Sall wàññi doole PDS bu baax a baax euh, ñii dem nañ ci APR ñi dem nañ ci Benno euh, xiro ngaayoo bari ci PDS PDS amul leader euh, Karim moo doon seen candidat mu ngi exil Abdoulaye Wade màgget na donc PDS doolem dafa wàññeeku bu baax a baax ci nguuru Macky Sall hmm. dese mooy parti bu bees bu feeñoon bi muy Pastef euh, mën nañu wax ne ci opposition bi euh, ci ñaari anam la la leen Macky xeexe hmm. wàññi doole euh, PDS ki nga xam ne mënoon na peut-être sonal Macky Sall ci élection présidentielle wala ci élection locale loolu wàññi na doole PDS bu baax bu baax a baax donc bu ñu doon jël exemple ci PDS le PDS quand a, été réduit à sa plus simple expression mm. bon maintenant opposition bi ñuy wax euh, yu nekk ci Yewwi par exemple euh, tey ji euh, gaaga Yewwi am doole ci local wala ci législative yi mais bu ñu def globalement Euh, tey jii yéew bi nga xam ne moo nekkoon euh, coalition bi nga xam ne moo gën a taxaw ci opposition bi euh, Macky Sall tas na leen hmm. ndaxte boo gisee Pastef tey jii ak taxaw seen xuloo bi day wone daal que Macky Sall quand même na doole PDS tas na coalition Yewwi Askan bon ah, pour la première fois d'ailleurs ngay gis ci parti yi nga xam ne ñu ngi ci ëpp ñu ngi euh, wax na que ñu ngi bokk ci opposition bi Macky Sall la ñu gën jege. que hmm. opposition bi. Hmm. donc loolu yëpp pour wan na la que Macky am na quand même stratégie. Hmm. même su dee mënuñu wax ne qu'il a réduit toute l'opposition à sa plus simple expression mais réussir na diviser leen ak affaiblir PDS ak PASTEF. loolu moom euh, am na résultat côté boobu. Hmm. bala ñuy ñëw ci division bi ak ni koy defee am na aussi stratégie bu ñu nemmeeku depuis mu ñëw euh, commencé ci traque des biens mal acquis muy tëj ay opposants surtout opposant principal avant Ousmane Sonko euh, Khalifa Sall ak Karim Wade jaar nañu foofu te dafa nekkoon ci moment yoo xam ne aussi am na lu ñu représenté woon ci bëtu sénégalais yi ci wàllu ci wàllu politique est-ce que loolu ñu ko jiitoo defoon nañ ko mooy tëj opposant boo yaakaar ne mun na la sonal wala ñu njortu ne en tout cas li mu la mun a sonal ci wàllu politique ak élection moom moo tax nga tëj ko est-ce que scénario yu mel nii amoon na ci ci nguuru ñi ko fi jiitu moom président Macky Sall. non non non non non non bu ñuy xool euh, euh muy Senghor muy euh, Diouf muy Abdoulaye Wade. yu daan faral di gis ñooñu président yooyu dañu xeex seen seen propre militant hmm. Abdou Diouf dafa xeex baron yi bon Senghor bi mu ñëwee ñi mu doon xeex mooy gauche bi hmm. bon Abdoulaye wàdd ñi mu gën a xeex mooy ñoom Idrissa Seck ak ñoom Macky Sall donc xeex yooyu yëpp boo koy euh, euh, analyser euh, adversité politique la du du yóbbu du yóbbu kaso du yóbbu kaso bon Macky nag euh, quand même la wute na lool lool ndaxte Karim Wade fu mu mujj muy exil exil politique moom mësul am euh, euh, ci Senghor wala ci Abdou Diouf wala ci Abdoulaye Abdoulaye Wade bon soo jëlee ka Khalifa yóbbu nako prison Euh, donc dafa utiliser euh, euh, lutte contre la l'enrichissement illicite bi nga xam ne même Abdou Diouf bi nga xam ne moo indi woon loi boobu daf ku mujj teg ci suuf moom moo xam ne ne que même baron yi waralu leen xeex xeex noonu dafa mujj teg xeex boobu ci suuf bon Ablaye Wade jéemoon na def loolu mais dafa teg ci suuf mais Macky rek moo dem quand même bu bout ba tëj euh, exilé Karim tëj Khalifa mënatul bokk ci élection euh, loolu moom euh, Macky Sall rek moo moo moo def moo def lu mel noonu. Hmm. alors loolu doyen ban njeexital la am ci démocratie wu Sénégal ak ci opposition bi. Euh, ñenn ñi ne jur na ragal dañu leen intimider ba tax xëy na léegi ñemeetuñoo def yenn yi ñu ci bëri aussi euh, di ci traîner ba léegi ay ay jafe-jafe ndax am na ci ñu ne ca tëj yañ leen tëj lañ gëj wéree ci lañu amee yenn tolof-tolof yi euh, loola am na lu mu def ci démocratie bi am déet. ah am na lu mu def lu lu bari lu bari ndaxte bon nañu wax ne abus de pouvoir la Macky def ah, yore naa nguur. Euh, maa yore exécutif yore législatif yore judiciaire dama koy utiliser euh, ci ñi nga xam ne ñii suma adversaire lañ bon loolu loolu moom euh, abus de pouvoir bu bu bu sës bi mooy li nga wax ñu bari ñi nga xam ne tumoon nañu leen ci jamono PDS tey jii ñu ngi ci gannaaw Macky ñu ñu bëri ci euh, ci waa PDS euh, ñu ngi ci APR wala ci coalition benn même boo xoolee Idrissa Seck dafa mujj dem ci majorité présidentielle bi. Mm-hmm. te te njëkkoon na cee dugg ba génn ci. voilà donc loolu. Euh, bon stratégie mais mais Idrissa Seck du wàllu yoon xëy na peut-être transhumance la ak yeneen i feem yoo xam ne utiliser nañ ko ci. waaw mooy li nga wax tiit. tiit ah. di xamoon na ne su defoon comme Sonko hmm. xëy na Sonko fi mu mujj foofu lay mujj xa xam xam na ne euh, ki mu amal affaire euh, mu mënul mënul def comme Sonko hmm. bon mënul def comme euh, ba mu bàyyi waa PDS dem ci majorité bi ñoom ñu moom ñu bàyyi ko ci opposition bi donc loolu day wone ne que moom Euh, dafa dellu ci Abdoulaye Wade lu mu def daan def muy entrisme hmm. dem foofu pour bañ a jàkkaarloo ak nguuru Macky Sall d'accord bon defe naa euh, Macky loolu moo doon stratégie bi bon maintenant ñu mënul ñëw ñi nga xam ne opposition radicale bi mais ñooñu la Macky gën a gën a gën a sonal. Hmm. loolu moo tax suñu démocratie dellu ci gannaaw euh, ci ci nguuru makisal ni mu traité Pastef ni mu traité euh, Ousmane Sonko ni mu traité journaliste yi ni mu traité euh, société civile bi mais loolu peut-être Senghor rek lañ ko mën a méngaloo donc su lu day wone ne que suñu démocratie dellu na quand ci gannaaw bu baax euh, bu baax a baax ci euh, ci ci ci nguuru Macky moom baton wala carotte lay lay lay mel ni koy utiliser ndax euh, am na ñoo xam ne xëy na du du du ay problème ci wàllu yoon moo leen yóbbu ni nga ko waxee mun na nekk ragal xëy na ñu xam ne bu ñu amee nu ñu taxawee euh, danañu leen faagaagal wala ñu am xëy na fu nu jaar ak ñoom ba tax ñu wuy si mais beneen stratégie nag bu gën a fës te moo d'ailleurs lay taayal waxtaan wi mooy lu mel ni dialogue yi feem yi muy utiliser moom président Macky Sall ba tasaare opposition bi indi féewaloo si seen biir ndax 2017 bi ñu jëmee ci législative ya taxawaloon nañ fi kuréel wante ci la yëkkati lu mel ni statut de l'opposition coow li tàmbale diggante PDS ak ñeneen kii naan maa ko mérité kële naan maa ko mérité ba xëy na daal ñu am considération yu tax euh, ñu ñu tasaaroo ñu ñëwaat itam euh, ci élection locale législative li mu joxe ñu indi dialogue euh, boobu ñu ngi jëm ci présidentielle parallèle gis nañu yi mi gënoon a taxaw it daal di mujjee tasaaroo féewaloo am ku toll ni xalifa Sall bokk ci ñu ko samp génn ci euh, noo jàngatee feemu président Macky Sall moomu a chaque occasion muy am lu mu mun a teg ba opposition bi féewaloo ca moom moo ñor wala opposition bee matadi. waaw waaw defe naa euh, loolu euh, c'est c'est très important euh, dialogue Macky Sall wuute na lool ak dialogue euh, président yu yu passé euh, parce que boo gisee euh, par exemple dialogue bi nga xam ne am na ci nguuru Abdoulaye Wade assise nationale Abdoulaye Wade invité nañ ko mais bëggul woon dem dafa bañ a dem mais dialogue bi bàyyi na quand même dialogue bi am mm. lu lu at mu bàyyi opposition bi di discuter seen biir di am euh, wecce xalaat ba am seen conclusion li nga xam ne mësul woon am ci Sénégal hmm. bon loolu euh, état d'esprit la nangul sa opposition possibilité que ñu toog waxtaan seen biir euh, et conclusion yooyu am na quand même njëriñ pour nguuru Abdoulaye Wade hmm. dialogue Macky Sall dafa wuute ak euh, dialogue Wade dafa wuute ak dialogue euh, Abdou Diouf Abdou Diouf dafa doon jàkkaarloo ak opposition ñuy dialogue. Hmm. ba am dialogue ci lan dialogue ci les problèmes de l'heure élection ak yooyu. organisation des élections. d'ailleurs ci la amee code Kéba Mbaye 92. voilà waxtaan oui. voilà donc dialogue boobu mooy man lii laa xalaat yow lii lii nga xalaat nañu waxtaan ba ñu am consensus ba créer ONEL. nangul opposition bi d'accord ñu bàyyi fi ministre de l'intérieur ñu bàyyi fi euh, la direction chargée des élections mais comme yéen amu leen confiance ci suma ministère de l'intérieur nañu d'accord ci ONEL mm-hmm. loolu c'est un dialogue constructif observatoire national des élections voilà day day améliorer mécanisme de de de gestion de l'élection mm. lu mu dialogue yooyu lu mu wutee ak dialogue Macky Sall mooy à peu près li nga wax c'est que damay dialogue mais su ngeen ma nangulul man duma leen nangul dara hmm. euh, boo xoolee depuis mille 2012 ba tey ji divergence yu nekkoon diggante nguuru Macky Sall ak opposition c'est les mêmes divergences hmm. Macky bougé wul fenn ci position yi mu nekkoon dialogue yi fi am yëpp tam est-ce que jur na dara. non y' a pas de. xam ne solution la ci problème yi ñu am. ba ba xoolee parrainage bi ba tey ji fi ñuy wax amul consensus. am na ñi nga xam ne euh, demuñu sax fekk dialogue boobu. Mhm. donc y' a pas du tout de consensus. ministre de l' intérieur amul consensus. Euh, fichier électoral amul consensus. Mhm. bon xëy na fi ñu mën a wax am na consensus. mooy ñu nangul Macky Sall euh, amélioration de la loi sur le parrainage hmm. donc Macky jalogam am yëpp c'est pour euh, am euh, pour gagner du temps ak pour mu am ñi nga xam ne dinañ ko dina dinañ ko nangul lu muy proposé mooy la carotte mmh. le bâton mooy que ku ma nangulul li may proposé yow tu es mon adversaire hmm. donc euh, maki nu mu comprendre dialogue mm-hmm. euh, mooy que soit yaa ngi ak man euh, ñun ñoo bokk gis-gis ou soit su suma adversaire ce qui fait que boo xoolee depuis depuis même conclusion Amadou Makhtar Mbow mm-hmm. defoon na réforme def conclusion mais Macky dafa tànn li nga xam ne arrangé na ko mm-hmm. lu ci des mu sànni ko. waaye séenéer donc dialogue ni muy euh, comprendre jaloo daal des na des na loolu moo tax ba tey ji euh, à quatre mois élection présidentielle mënoo wax ne tey ji ban consensus moo am entre pouvoir ak opposition. coow laa ngi tàmbalee sax ba muy doog a falu ñu naan conclusion assises yi il s'était engagé mu ne yenn yi dafa signe woon sous réserve boobu werante it amoon na fi. waaw foofu nag foofu la lépp door hmm. ndaxte euh, commission de réforme des institutions loolu pouvoir ak opposition ñoo d'accordoon ci loolu ba Amadou Mahtar Mbow def commission am hmm. commission boobu liggéey hmm. conclusions yi c'est des conclusions consensuelles parce que état bi sax moo financé euh, commission boobu mais bu ñu joxee Macky Sall conclusion yi dafa tànn lu ko neex bàyyi bàyyi euh, li nga xam ne lii euh, soo gisee sax commission ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu mujjee mm. tegutu ji dafa génn loxoom taxaw fële mm-hmm. et loolu conclusion yooyu ba tey ji amul consensus te waroon régler problème yu bëri mais c'était la base c'est la base minimale pour un, un consensus mooy réforme euh, de de la constitution réforme am ñu am une charte de gouvernance euh, avoir am un processus électoral apaisé mais loolu moo doon conclusion Amadou Makhtar Mbow hmm. suñ suñ ko appliqué woon depuis 2012 mais du ñu am problème yu ñu am euh, actuellement. Hmm. particularité dialogue yi président Macky Sall euh, di woote itam mu fi jot a tëgg mooy toujours day am lenn luñ naan dafa am ku muy viser ci opposition bi xëy na euh, ñeneen ñi dañuy ñëw pour servir de faire valoir euh, lu mel ni dialogue bi mujje nee nañu am na ci loo xam ne Ousmane Sonko la concerné juste pour que ñu mun ko seppi euh, ci ci élection yi loolu itam euh, luy xajamal dialogue yi président Macky Sall jot a tëgg la a chaque fois mu woote ko am na luñ cay mën a daal joxoñ ne lii moom waru cee bokk wala dañu koy euh, muuree leneen li juste pour que mu mun a jàll. waaw mën nañu wax ne bu ñu comparer dialogue politique ci euh, nguuru Macky Sall deful dialogue politique en réalité hmm. euh, dialogue électoral lay def ah, euh, c'est-à-dire que gis nga dialogue politique mooy doon conclusion assise Amadou Mokhtar moo bu ñu wax loolu c'est dialogue politique parce que fi muy abouti mujjantal bi mooy des réformes hmm. institutionnelles mais boo gisee pourquoi dialogue Macky Sall ma ne la c'est un dialogue électoraliste euh, Macky il euh, il est obsédé par l'élection mm. par l'élection éliminer Karim éliminer Khalifa éliminer euh, Sonko euh, moom noonu la gisee euh, il utilise le dialogue à des fins à des fins éle électoralistes mm. c'est ce qui fait que dialogue bi bon régler dara c'est pas des dialogues politique pour pour pour ref par exemple Sénat je prends le dernier exemple là mooy Sénat. Mhm. à dire Sénat avant ñu koy créer au Sénégal consensus moo lal Sénat. Mm. mais fu fu ñu toll nii dafa jël décret. Ouais. un décret consulté wul parti am consulté wul Benno consulté wul opposition c'est un décret présidentiel alors que en matière électorale Euh, président amul moom code sañ-sañ pour faire un décret qui va qui ki nga xam ne dina dina organiser élection loolu loolu mësul am ci Sénégal mm-hmm. que à chaque fois que depuis Senghor à chaque fois que mu am en tout cas euh, matière électorale day am débat avant mm-hmm. président mënul jóg rek def de un décret supprimer Sénat créer beneen Sénat euh, bon ça ça quand même j'ai jamais mësuma ko gis euh, de gestion des des des élections te li ci gën a doy waar mooy ñi mu fal ak la ñu wax ca ñoom yépp ci jege ko ci wàllu politique ben voilà xanaa su waxtaanoon au moins ak Benno mmh. Benno dina ko wax mais président lii ak lii ak lii jaarul yoon mais fi mu nekk ni un décret présidentiel pour mu dellu si ba day jafe et je pense que euh, difficulté bi ñu am mooy que président bi euh, il a tous les pouvoirs c'est vrai mais amul dialogue politique mm-hmm. mais est-ce que opposition bi tamit ñenn ñi mënuñu leen xoolee peut-être sax comme ñu koy jàppale parce que tam bu wootee dialogue am na ñuy wuy ji lépp luñ fa dogal dafay jàll sans problème euh, ñooñu tam amul lu ñu leen mën a wax ci ci ci ci mbir mi am na ñoo xam ne moom dañuy radical du ñu dem euh, ñàkk dem ba itam du tee li ñu bëgg mu jàll dafay jàll euh, loolu mooy réalité bi mais ñiy dem ñi est-ce que du ñoo koy jàppale ba li muy def xëy na mun a mun a legal ci bëtu ñenn ñi. waaw que ñoom mu xam na euh, ak kan la la war a dialoguer que que day daf lay woo ci suuf waxtaan ak yow ci suuf euh, avant muy wax dialogue bi Barthélemy Dias dégg nañ ko muy wax ne que waxtaan na ji waxoon na fii sax moom moo jël initiative dialogue bi mm. donc ça veut dire que Macky day waxtaan ci suuf mm. euh, ak leader yi bu mu wóor ne ñii mën na déggoo ak ñoom ma ma soog a convoqué euh, dialogue. ci kaw mais wóor na wóor na ko am na ñi nga xam ne du leen consulter sax parce que ñooñu duñ ko wuyu. Hmm. loolu lay ñooñu ñooñu la bëgg a isolé. d'accord donc Macky xam na xam na li muy def pour xëcc yenn ñi ci opposition bi ñeneen ñi moo gën a leen mën a xeex. Hmm. loolu moo am ci dialogue bu mujj bi. léegi loolu doyen responsabilité wu opposition bi lan la ci parce que tam réew mën ta ñàkk opposition te demoon nañu daanaka ba xëy na parti opposition yi mën nga leen a waññi et pourtant sooy xool rek ci ñi nekk ci nguur nekk ñu ci nguur euh, ñi nekk ci opposition bi takk woon nañu mais en réalité dañuy xaw a néew lool li tax ñuy wax opposition en tout cas est-ce que tey woy politique gu Sénégal ñoom tam ñiy faree ci opposition bi di ko woote woo amuñu responsabilité bu rëy situation bi de defe naa opposition am na responsabilité la la loolu moom euh, maintenant responsabilité bi c'est que opposition Sénégal am amul leader. Hmm. amul leader problème leader lañu am. problème leader la ñu am parce que normalement avant ngay dem dialogue su dee yéen ñëpp opposition ngeen balaa ngeen dem wuyu da ngeen di toog waxtaan. Hmm. su amul leader wala un parti bi nga xam ne le plus influent organiser opposition bi ne avant ñuy dem sur quoi on est d'accord pour aller dialoguer mmh. mais ku ku nekk dem bon les radiko radicaux Yewwi ne du ñu dem même seen biir Khalifa dafa rocceeku ne damay dem alors que opposition mooy consensus consensus mooy opposition kon ñoom problème mu déggoo am problème déggoo la am. problème booloo unité de l'opposition oui. voilà unité bi ak chef bi. waaw mhm. ce qui fait que la Macky Sall xam na loolu. ci loolu lay sukkandiku pour pour pour pour pour mën a leen influencer am na ñi nga xam ne sax xëy na dafa leen di promettre euh, ay yenn yenn facilité oui parce que ku nekk aussi dafay bëgg a nekk chef bu ñu xoolee li xewoon 2017 bi ñu naan statut de chef de l'opposition parce que loolu moo leen xaajale alors que législative yooyu buñ ci demoon ensemble comme niñ commencé woon mënoon nañoo am lu bëri. mais tout à fait boo boo xoolee euh, euh, mooy mooy lu ñuy wax un appât. Mhm. xam na ne PDS am na réew mi am na Pastef am na. Mhm. bon mu ne euh, chef de l'opposition kan la ci yéen. Mhm. mais da da da day jéem a corrompre day day jéem a xëcc PDS hmm. ne leen que yéen a war a nekk hmm. woo Idriss Seck ne yow yaa war a nekk ñu xiiroo ak ŋaayoo hmm. euh, et je pense que Macky day exploiter problème yu nekk ci biir euh, opposition bi euh, so soo gisee ni mu tëddee opposition tey ji ni mu tëddee mais loolu mësul am ci biir opposition nga gis ñi nguur gi la ñu gën a jege loolu pouvoir su xamee loolu ba daf koy daf koy ci profiter pour pour euh, gën a diviser opposition bi mmh. et plus l'opposition est divisée mais moins elle a une chance de gagner mmh. mooy local yi mooy législative mais pourtant bu ñu xooloon bu baax comme ni nga ko waxee mmh. nga dem élection législative ngeen am pratiquement le ouais. même nombre que le, pouvoir. lu musul am aussi on a frôlé la cohabitation. Euh, on a frôlé la cohabitation mais donc buntu bi mooy foofu mooy unité. et preuve bi mooy peut-être bi Abdoulaye Wade di falu euh, ndem si yàlla Ibrahima seen yàlla na ko yàlla yërëm bi may nettali ni ñu demee jëli ji Abdoulaye Wade ñoom ñëpp ñu def bloc autour de lui mais bi mu ñëwee dafa gagné. mais mais voilà. en ça, loolu moom loolu nag dëgg-dëgg loolu moom manque opposition. Hmm. yu unitaire mm-hmm. nga gauche bi ni mu gisee situation euh, quatre vingt dix neuf euh, kenn ci ñoom mënul gagné PS mm-hmm. mais suñu booloo nekk ci gannaaw Abdoulaye Wade mën nañu gagné mais loolu dañ dañ toog waxtaan ba am consensus. waaw nangu ne kii mooy leader bi. kii mooy ki gën a jekk waaw ah, mais tey ñëpp a bëgg koo gis dafa bëgg nekk président ci opposition bi. voilà et, e loolu su e, su le Macky su xamee loolu mais am na bunt bu rëy. Hmm. comme comme yéen mënu leen juboo ba man dama leen di gën a. jaxase hmm. tasaare. mais ñi nga xam ne dañu dëgër bopp ma dóor leen. Hmm. loolu loolu moo leen boo gisee sax dernier exemple e, mooy Sonko mu ngi en prison de il est même en réanimation. comment une opposition peut ne pas. bañ a taxaw def marche pour libérer Sonko wala pour alerter sur la santé dara donc même les questions élémentaires de la démocratie. Mhm. opposition bi amul sax xel. pour ñu booloo au moins ñu am euh, ñu xeex pour am benn ndam. Mhm. sur le sur le pouvoir. mais doyen avant Sonko am na yeneen combat maa ngi koy wax bi may tàmbali ma ne président Macky Sall lép lu mu waxoon ne da koy def def na ko euh, bi mu ne day tëj Karim ñu ne du ko tëj tëj na ko euh, tëj na fi xalifa Sall parrainage bi dañ ne woon du jàll loi bi bis buñ koy voté duñ ko fi amalee mais ñoom ñëpp sàndaga lañ yem comme ni may faral di leen ko tooñee kenn dépassé wul Sandaga ci ñoom euh, te pourtant boobu xëy na tasaaroo wuñ sax nii jéem nañoo def bloc moo tax man toujours dama naan est-ce que ñoom am nañu doole bi war ngir jàkkaarloog euh, président Macky Sall. am am euh, kenn kenn rek vraiment su dee observation dëgg-dëgg. Hmm. Ousmane Sonko lu ko jaral ci xeexu politique ñeneen ñi loolu jaralu leen. Hmm. donc problème bi ñu am ci opposition bi mooy que euh, détermination bu nekk ci Pastef ñoom amuñu ko. d'accord mais nanguñu aussi nekk ci gannaaw Pastef. Hmm. loolu c'est euh, jafe-jafe bu bu rëy la pour pour l'opposition parce que boo ne da ngay xeex dara ñu sànni la lacrymogène rek nga ñibbi y a problème. non ça ça veut dire que nekk ko ci opposition. Ouais. que que euh, bon comme on dit ah ku ñeme kaani. ku bëgg akara ñeme kaani waaw. le pouvoir aussi c'est soo xeexul mënoo am nguur. Hmm. muy muy eh. euh, Abdoulaye wad muy Macky Sall. Euh, suba keneen euh, nguur pour nga jot ko. da da ngay xeex li nga xam ne lii wóor na la ne. Hmm. da nga ko war a xeex mu jaral xeex mais loo ci am am. Hmm. bon mais bu dee da nga bëgg nguur ñu jox la ko sur un plateau d'argent. Hmm. mais loolu en tout cas Macky Sall du leen jox nguur suñu suñu xeexul. alors suñu xoolee yi Yewwi euh, Yewwi Wallu surtout intercoalition boobu amoon na avenir surtout après élection euh, locale yi ak euh, législative yi ni ñu ko ni ñu ko defee législative yi surtout mais yi gis nañu fi mu mujjee mu nekkoon peut-être yaakaar bu mag bu jur déception ndax même assemblée xaajaloo nañu foofu ñu ngi jëm aussi ci lu ñu naan fit Euh, front euh, boo xam ne dafa bëgg saytu élection yi candidat yi def ci bloc ñoo ngi jéem a seppi sax nee nañu ñu ñu njort ne dañoo jege lool nguur mais dans tout ça dañu gis ne société civile bi sax mi ngi leen ciy jàppale est-ce que gis nga wala yaakaar nga ne ak ndimbalu société civile bi dinañu dem même si laloon nañ fi F24 muy opposition aussi ak yenn organisation ci société civile bi mais loolu aussi dafa mel ni coowu ñetteelu mandat bi daf ko fay parce que effet bu muy def tey euh, ci xeex opposition bi daanaka daanaka taxatu koo demee noonu mais lu bees lii ñëw fit ak euh, société civile bi ci ànd ak opposition bi yaakaar nga mu mu def différence par rapport ak xeex yi yeneen yi ni daan demee. waaw yaakaar naa mën na mën na am fit am na chance ak euh, ak société civile bi am nañu benn chance parce que euh, lu des ci élection présidentielle bi bariwul et euh, dafay mel ni c'est une dernière bataille hmm. la la dernière bataille euh, bu ñu amee concentration ci sur les deux objectifs mooy euh, ñëpp mën a participer élection ar yoon ñaari objectif yooyu quand même mën na mobiliser tous les partis politiques de l'opposition ak société civile bi bon loolu en termes d'objectif mais des na parce que euh, lu des ci élection bi bariwul est-ce que dinañu am une meilleure organisation que F24 wala Yewwi Askan est-ce que dinañu am détermination. Hmm. donc loo le le euh, defe naa objectif bi baax na wante organisation bi ak détermination bi euh, su amul mënuñu weesu victoire Yewwi aux législatives Mm. ça ça va être extrêmement difficile euh, suñu amul euh, une bonne organisation une bonne détermination euh, ñu xam ne li la ñu bëgg ñu xeex pour am ko. surtout sans mais pour pour man en tout cas s'ils veulent suñ suñu bëggee am ndam deux mille vingt quatre. Mm. il faut il faut être capable de libérer Ousmane Sonko. waaw ah, Sonko. Ousmane Sonko libre c'est un coup euh, dur pour le régime mmh. loolu dina leen jox euh, beaucoup plus de de de crédibilité et dinañu mën a engager en tout cas les électeurs de de l'opposition mën nañu yeewu ànd ak dina dina dinamique boobu mais si jamais euh, amuñu victoire pour libérer Ousmane Sonko mu mën a participer loolu soo moytul dina wàññi doole opposition bi. Hmm. waaye li ngay wax nii est-ce que est-ce que mun na nekk yaakaar nga ne mun nañu ko parce que ku munul libérer xalifa munoo libérer Karim munoo tere parrainage jàll ak li ci euh, cour de justice bu CEDEAO wax yépp est-ce que kooku mun na libérer Ousmane Sonko à trois mois de l'élection présidentielle. ah mooy comme li ñu wax suñu amul fit duñ ko libérer. Hmm. loolu moom fit la fit la euh, bon fit ak xel nag. Euh, lu des ci élection bariwul mais li nga xam ne lii euh, du yoon ñu teg ko ki nga xam ne mën na sax gañe wala mën na indi euh, kenn ci opposition gañe xeex boobu moom suñ ci tegul suñ ko joxul àqam bon du du ñu dem mais mais nag ils ont une chance ils ont une chance parce que tey jii moom euh, euh, Ousmane Sonko c'est une victime mhm. maintenant est-ce que dina leen jaral euh, loolu est-ce que am nañu fit boobu est-ce que am nañu organisation bu bu mën a mobiliser opinion bi loolu suñ ko amee ba c'est c'est fort c'est possible ñu bañ a xiiroo ak ŋaayoo amee xiiroo ak ŋaañoo Euh, ça va être très très difficile pour ñu pour ñu génne Ousmane Sonko fu mu nekk beneen aspect bi aussi mooy Pastef dañ ko dissoudre mhm. donc comment il faut ñu xeex pour que décret boobu ñu mën ko ñu mën ko ñu def nañu recours mais est-ce que au plan juridique tey xeex bi mun na yem foofu parce que même même pour Ousmane Sonko gis nañu ne xëy na tey euh, ci wàllu yoon la gën a jublu ndax euh, nekkatul ci biti pour mobiliser pour euh, euh, def résistance comme comme ni mu ko daan defee mais est-ce que yoonu juridique boobu ñu jël mën na leen jox dara ñoom waa PASTEF ak Ousmane Sonko ak peut-être même ñeneen ñi parce que ku mel ni Aïda Mbodj mi ngi naan décret bi fal naa sax ñoom opposition bi dañ koy attaque waaw def naa ci wàllum yoon moom am nañu am nañu chance am ndam ci CEDEAO bon wante ci euh, ministère de la justice ak gouvernement bi euh, yaakaaruma Macky dellu ci gannaaw euh, loolu moom pour ñu am ndam ci justice xanaa ñu appliquer décision juge Ziguinchor bi Sabassi Faye Sabassi te boobu exception la voilà boobu c'est la seule fois que mm-hmm. Ousmane Sonko am dëgg depuis depuis bi mu amee affaire yi mm-hmm. suñ ko appliqué woon xëy am nañu chance ci côté ju euh, justice bi mais euh, vraiment ni mu demee ni décret président euh, dina Sénat dina taxaw lundi. installé leen temps temps bi dafa dafa xat. Mhm. bon je vois mal naka la ñu mën a am victoire sur le plan juridique mais par contre fu ñu mën a amee victoire c'est sur le plan politique. su su leen jaralee am euh, une résistance ak une organisation euh, Macky va reculer parce que je vois mal euh, Macky Sall du candidat dans quatre mois du nekk di président de la République euh, Macky Sall du du ñeme jël risque boobu hmm. euh, lu lu ñu dund en juin deux mille vingt trois je ne pense pas que Macky Sall pour dundaat lu mel noonu. pourtant loolu dafa mel ni aussi def na def na effet doyen parce que tey ñu bëri euh, si askan bi même si politique yi dangay gis ne ni ñu ñemee woon wàcc ci mbedd mi ñemeetuñ ko parce que euh, juin ak mars yëpp am na fi ay bakkan yu rot ñii naan ñii ñoo leen faat ñee ñoo leen faat mais ba tey dara leeru si ñu bëri bëri aussi jàpp nañ leen dugal ci kaso bi boobu ba tey yàgg nañ fa te dara xewul est-ce que loolu du déjà benn victoire d'avance bu président Macky Sall am si opposition bi peut-être ci probable résistance wala manifestation yi ñu nar a amal. non def naa moom lu lu am ba am euh, mooy que euh, opposition bi euh, xam na que Macky Sall tey jii nguuram dafa dëgër. que comme lu nga xam ne mësul am mille cinq cent prisonniers le chef de l'opposition en prison. Euh, créer décret pour euh, nga taxawal Sénat euh, l'administration de appliquer décision de justice mais kooku lu mu lu mu fas yéene leer na mm. ah dina dem am na feuille de route am bon répression baa ngi fii donc loolu moo tax ñu bari ci opposition bi tiit ragal que lu dal Ousmane Sonko mën na leen dal. Mm. bon loolu loolu moom option boobu moom euh, am na effet même ci mm-hmm. opinion bi ci classe euh, politique bon maintenant loolu tax ma ne la détermination rek suñu amee fit mm-hmm. am na li nga xam ne mënu ko jéggi d'accord mënoo am mille cinq cent nga bugg a réprimer euh, alors que nekkoo ci nekkoo ci yoon mm-hmm. loolu en tout cas Euh, acteurs politiques yi ñoom ñoo war a def seen seen analyse euh, bon c'est vrai que Pastef ak Ousmane Sonko perte nañu une bataille bon mais ils n'ont pas perdu la guerre hmm. est-ce que maintenant le, le coalition bu bees bi dina mën a engager euh, le, le, la bataille la dernière bataille de l'opposition et, et loolu nag dafa laaj quand même beaucoup de courage ak détermination ak euh, organisation pour euh, pour euh, pour pour que Macky Sall dellu dellu gannaaw. Hmm. mais su amul rapport de force moom c'est sur que Macky Sall dina jaar seen kaw. Hmm. mooy nekk laaj bu mujj bi doyen fit mi ngi ñëw nee nañu pour l'inclusivité des élections ak transparence ak yeneen mais. opposition bi nga gis ak euh, ni yëf yi demee ba tey ñu bëri jàpp nañ ne engagé wuñu wala porté wuñu sincèrement le combat de Ousmane Sonko yaakaar nga ni ñooñu euh, ndax nee nga sànq euh, coup bi gën a fort mooy génne Ousmane Sonko d'abord doog a dem ci élection yi loolu mooy may opposition bi chance mais yaakaar nga ni lii ñu wax yëpp opposition bi euh, euh, fit ak leneen luñ mun a taxawal euh, xeex pour Ousmane Sonko génn ak bokk mooy nekk seen priorité ndax ku ci ne tey Ousmane Sonko ngi ci kaso bi nee nañu ma nga réanimation mi ngi ci diggante dund ak dee mais teewul ñoom ñu ngi wuti parrainage ay communiqué la ñuy def ak sax ñan ñoo koy def ñeneen ñi daanaka déggatoo leen ñu ngi ci biir dëkk bi di wut parrainage est-ce que dinañu porter combat boobu nga wax. Ah, dina dina dina jafe. na jafe parce que euh, quand même euh, tey jii euh, bàyyi nañu Ousmane Sonko ci loxo Macky Sall. oui Pastef bàyyi nañ ci loxo gouvernement. Mhm. bon opposition bu bu buy bàyyi situation boobu di continuer. Mhm. c'est que xeexoo dëgg-dëgg pour pour libérer. xeex itam naroo donc voilà absolument mm donc euh, loolu euh, faiblesse opposition bi la bon euh, les léegi nag euh, problème bi ñu am nii ni nii c'est mooy mooy le problème du leader mhm. gis nga Ousmane Sonko quoi qu'on dise euh, de lui mhm. xeex na deux ans trois ans ba lii fekk ko est-ce que ci biir fit am na ki nga xam ne am na fit Ousmane Sonko bi mu am mhm. voilà est-ce que am na parti bi nga xam ne dina dina ko dina ko dina nekk ci gannaawam mhm. est-ce que coalition bi am na organisation pour xeex dëgg-dëgg mhm. donc loolu yëpp euh, defe naa euh, moo manqué opposition bi bon mais quand même am am na ñu fa nekk am nañu expérience euh, pour pour def cette dernière bataille mais aussi bon comme xeex la rek mais il faut ñu sóoraale aussi des alternatives mm-hmm. que Ousmane Sonko su su su génnul mm-hmm. Pastef suñu levéwul ban alter ban plan ngeen am mm-hmm. qui pourquoi pas un, un un candidat maintenant unique après tous les parrainages là ça aussi il faut que opposition mën a réfléchir sur des sur des nga xeex mais en même temps nga prévoir des des alternatives Nee. parce que alternative boobu wala stratégie boobu elle a été payante en bi ñu ngembee euh, Abdoulaye Wade euh, ñoom peut-être majorité opposition bi en tout cas doyen ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte lool sekk ak yow waxtaan pour delluwaat ginnaaw tuuti ci wàllu politique xool surtout taxawaayu opposition bi nuru tey lu néew doole lool ci kanamu président Macky Sall waxtaan wi tax nañu gindee ko ci yu bari xam itam jafe-jafe opposition bi ak li ñu tuddee néew doole kañ la tàmbali dëgg-dëgg ak lu di la ñaanal yéen doog jàmm ñaanal ko itam ñu ñu doon déglu ñëpp. jërëjëf Fatou am naa amoon naa mbégte lool lool jërëjëf. Albert moom la ñu doon dalal ci seen émission démb ak tey gërëm euh, Diawo Diallo mi ne woon ci jàppandal gi gërëm ñëpp ñu ñu doon teewlu aussi euh, di euh, leen dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaanee leneen ak keneen Fatou Thiam Ngom moo nekkoon ci kàddu gi maa ngi leen di ñaanal kenn dal jàmm ba dimanche incha allah.